te loolu xam gu ma xam sa yow sa diggante ak xasida yi ak ni ko fonke ak ni nga ko defi yitte loolu dafa doon loo xam ne lu lu lu lu lu yombul ni koy tuddee ci suñu am sax di ko tuddee ci ñeneen ñu mel ni ñoom ci dëkk bi nga xamne état ay lañ sun borom da def nga bokk ci doon am nga doomi sëñ latum sëñ Moustapha Bassirou jo xamne momit ci lola la dugg waaw Cheikh Bamba waaw dafa am nit ñoo xamne waaw dafa am nit ñoo xamne sun borom sun borom a def bo leen xolé rek da ngay da ngay daj di wallahi na <laughs> li ñuy soññu ko. béy bi béy bi mu kii dama dama ko yónnee. ok ci loolu lañ lañ doon wax daal. bii maanaam maanaam jamono ji ñëw. xam nga day am luy fay loo xam ne. ba mu ko ba mu ko waxee dafa yàgg. la fay saafara si problème bu mën doon rek trouvé na solution ñoo xam ñun ñi nga xam ne ñoo xamul waaw dimbali jiw dimbali jiw waaye loo jullit am laaj. parce que loolu loolu kenn xamuloon loolu. waaw moom. c'est vrai moom dara ma ma ma